Bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média. Bon réveil à tous. On se retrouve comme tous les matins. Tey c'est la dernière émission euh, bu euh, semaine bi tombé ak euh, vendredi mai man ak ils sont là alors euh, c'est toujours plaisant de se réveiller les vendredis parce que xam nañ ni suba euh, ñu bëri du ñu liggéey dimanche y aura pas boulot donc week-end bi dugg si na et euh, euh, li ñu leen bëgg rek lu ñu bëgg mooy kenn ku ci nekk bëggal boppam et comme tous les vendredis tout sera permis sur télévision Futur Média toute la journée vous aurez droit à un euh, bon programme ah ouais. mooy ambiance de jour de fête mais en attendant voici ce qui vous attend ci Yeewu Leen bu tey bi comme euh, tous les vendredis vendredi ay beaucoup de plaisir euh, dañuy waxtaane euh, histoire bu Sénégal te ay gox ak gox goxaan la ñuy tànn euh, ak Adjaratou Bessel Bass mi ci tàggal bu diis bi <laughs> <laughs> man sa tagala may daane tey tey moom yaay yaay yaay jàmb sama Dakar. gis nga ko maa la wax lii saf nga Fatick oo mooy xolli sama lingom. waaw yaay jàmb bi saf na la de ah. kay wala saf rek ah? ku la jol jolal. ku la jol jolal. boo ko gisee rek euh, Pape Cheikh di nga xam. kan moo fi war a. la Linguère. jeex na <laughs> boo ñaar fii li ci musóor gi gis nga ko. tagal gi baax nga xam nga dama nekk petit driyanke nag. yow kay yow kay fi mu ne nii dubal jeeg nga waaw jeeg da koy nuru <laughs> jeeg da koy nuru borom ñetti bee gis nga ko. Balla Babacar ak Boubacar. Eh. non ba du boobu sax waaye may boobu bal beeg bool beeg bataay bi bataay bi <laughs> donc c'était ça Pape Cheikh di la sargal lu bare bare di sargal tamit ñi ma bokkal plateau bi di wax rek euh, dama leen di namm lool su ma nekkoon su ma señoon nag bés bu nekk àjjuma lay jot pour sekk ak yéen plateau bi kafre ndeysaan dañu bëgg da xër torop ah? torop li tata dégg naan daxa fayu ko waaw daxa ah? fayu ko ndeysaan waaw ah, li daxa fayu ko waaye dégg naa la dégg ci dégg ci mer bi wax baax na ni ma ko def baax na non ma waan ah ta tata la ko Adja Degen laa tey tata laa sax mais Adja Degen Chimère laa bëggoon wax waaw Adja Degen waaye da ngaa sa ndey ji man la lu seen yoon maa ko tendance dégg waaw waaw maa ko tendance buñ ko gëstoo am na nekk laa ko koy wax lundi <laughs> kon jaajëfal rek ñi ñuy seetaan comme ni ñu baaxul di ko def rek àjjuma ju jot tey nag dañ leen di demal rek euh, dëkk bu tudd nu mu tuddati sax. <laughs> fàtte ko tagal gee diis nu dëkk bi tudd tagal gee diis. <laughs> sagal géej gi dëkk bi tudd eh ci loñ la tudd nag. ah ci loñ <laughs> d'accord ci loñ moo tax nag ma la koy laaj nga may naan nga may jéem a dosé ah, nii. kon tey Pape Cheikh dinañ dem ci loñ ñu wax leen rek historique ci loñ lan moo tax tur bi. kan moo ko njëkk a lan moo tax te aussi euh, lan mooy cosaan ak aada ak plat traditionnel ci loñ. ok kon di ko njëkk a xam naa naan na ko. Mm. <laughs> kan moo njëkk a ci loñ. Ah. Ah? naan na fondé ba. Google Bass. bu sa kanamee doog ñu dem euh, ci loñ. découvrir histoire euh, secret histoire euh, ci lañ en même temps xool tam seen lekk ba comme ni ko Bessél di defee àjjuma bu jot tagali nag du benn rek ñaar la euh, tagal bi ci topp ki ko fi def mooy ki ñuy bégal rek Euh, Asma Alex Seck mi ci tagal bu diis bi. waaw waaw R plus 4 bi la R plus 4 la bi R plus moo ñëw tey. moo ñëw tey R plus 4 bi ñëw tey R plus def ko ci rek fas yéene ko may téléspectateurs yi rek. gis kenn ku ci def benn R R plus 1 la. ah ouais bu nice. ñëw na ma grand yaa tax ma ñawlu R plus 1. mën na ko baax na ci non bi bi R plus 3 la parce que y a trois motifs. du N plus 3 bi la 4 bi laa indi tey 3 bi laa ñëw. 3 bi keroog 2 bi nga indi. 2 bi laa indi N plus 3 nga indi. 3 bi la dama ko fàtte gis ma ko. ah waaw yaa ngi koy teeral de maa ngi lay nuyu de. 3 ba ah waaw. ok Diallo mi baax Diallo mi xëy di may xaalis. ja waaw jaay mi bëggal askan wi. dëgg la Diallo bi fi ne. dëgg la Diallo bi fi nekkulee mu ñaaw. dëgg la mu xëy suba teel da ngay jaay si sant sant Diallo. dëgg la daf bëgg rek. dëgg la sa mbir defaru. dëgg la xaalis dugg sa poos. dëgg la sa journée neex. dëgg la yaa ñuy bëggal. dëgg la kopp su du tàkk. dëgg la buur jur gënal fagon dëgg la teg naa la ci raay bi demal. <laughs> Eh, tey yaay wago teg naa la ci raay bi demal waaw fu la neex toute destination. waaw tey foo ñu jëmee alors tey damay joxe gars yi programme yi ah les bons plans. ah ouais euh, c'est le week-end parce que dem waaw. ouais euh, les bons plans c'est le week-end les gens ont envie de sortir. ils ont mmh. envie d'aller voir des cinémas. Ah et aussi les amateurs euh, du sport mécanique. ñuy bëgg ay oto yooyu je reviendrai là-dessus ak ñi nga xamante ne bëgg itam ay concert et cetera yooyu yëpp on y reviendra et aussi ñi nga xamante ne dañu bëgg di seetaan spectacle yi tey moom duñu bàyyi dara. kon vos agendas tout à l'heure ak Exidex on aura les bons coins on aura de très bons plans pour week bi euh, mën a neex alors euh, grâce ak Mado à chaque fois ñu yeewu matin bi dañuy am ay trucs ak ay astuces yoo xam ne daf ñuy permettre euh, ñu am bien-être voilà. <laughs> <laughs> exactement Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu xale jigéen ak mbokku téléspectateurs mais tey nag dama jéggaani yeewu ma bien-être mais dama dem ci feneen fashion. ok li nga xamante ne nag moom moo xew ci jamono en ce fi mu ne nii c'est le c'est la le truc le truc noo ko waxee baax na. waaw kon waaw c'est la truc. Euh, eh, c'est la chose. la chose voilà c'est la chose des stars ou bagaasu stars yi la donc uh-huh. euh, maanaam tey mbiru stars nañuy wax parce que instant bi été bii nii moom moo génn ànd couleur yoo xamante ne dafa fës di tàkk. ah donc tey tendance bi nga ñu indil ko waaw tendance yi xew ci. Euh, tendance bi hmm. d'ailleurs tu brilles ah. waaw exact ah yaa ngi briller. waaw donc bi il faut ngay tàkk quoi. waaw instant bi moom waaw boo bëggee daan Euh, ah dégg de. Ah. <laughs> maman dégg fi mu nii daal dañ jël rek def la renfort kuy maman dégg. chimère ay ah, itam da nga ko tànnaas ay ajaa dégg. non moom tey sañ sama maman dégg na. waaw la di leen di nuyu. di leen di sant. daxa fay ko di leen di gërëm. <laughs> kon nag tey. mbiru Seras nañu fas yéene wax alaaji Pape Cheikh. incha allah kon pour tout à l'heure di ngeen am tendance yi ak euh, naka ngeen di defee doom bu ngeen génnee euh, surtout jigéen ñi waaw waaw asgoor bu génnee daa war a def doom. Hmm? xam nga euh, beseel nii mu def nii tey yii def na doom. macha allah doom la moom mi jàppale na ma ci Seras yi lay fa dem balaa Linguère rek. di doom la te xoolal moom ma sot sa doom moom it moo fi ñëw de. donc noonu la yëpp ci faa bu ca kanamee kon <laughs> waaw war na ñëw ci yow. ah da <laughs> eh, ah, eh, eh, kon bu ca kanamee kebe lañ koy defaral. kon kon kon kon bu ca kanamee ñu wax ci tendance yi ak Mado la plus folle des folles ah c'est ma biche <laughs> tout à l'heure on découvre son monde tey lan la. <laughs> ok donc euh, maa ñëwal. voyage musical on parlera de <laughs> eh voyage musical. Ah, voyage musical voilà balaa nga ma koy wax tey ay góor ki sala andi dégg nga eh comme d'habitude euh, y Davido et Simon donc États-Unis euh, Nigéria et puis Sénégal. ok voilà. voilà donc coup de cœur musical comme tous les vendredis ça permet d'avoir une bonne sélection bu ñu mën a euh, durant le week-end ce sera ak euh, Bijou la plus folle des folles voilà c'est ça comme tous les matins <laughs> et de plaisir xam nga boo yoree ay et moi je signe c'est la journaliste présentatrice 5 étoiles. allez yow. à 7h30 boo ko seetaanee da ngay kontaan parce que non seulement euh, elle donne. de vraies infos, mais c'est un plaisir de la regarder. Oui. En plus de nous faire plaisir, et de nous donner des infos. Mhm. elle nous a appris que l'information n'attend pas. Mhm. kooku mooy Léa Soukaina. bonjour. <laughs> bonjour. vous allez bien. très bien. alors euh, comme tous les vendredis vous êtes tous magnifiques machallah. pas plus que toi alors là ça brille euh, du bleu du vert euh, indescriptible comme d'habitude <laughs> mais dans le bon sens du terme. <laughs> <laughs> Et toi, bah écoute, euh, très bien hein, ce, euh, le yin et le yang qui s'affrontent. C'est un mélange, C'est très, joli, Le premier journal donc vous sera proposé à 7h30 et euh, qu'est-ce qui fera le menu de cette édition Bijoux, enfin Léa. <laughs> <laughs> je te déteste. C'est parti Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Le délit de vol d'électricité désormais sanctionné. Les auteurs risquent 1 à 5 ans de prison. Une mesure de l'État après constat de nombreux abus de la part des consommateurs. Les opérateurs de téléphonie mobile dans le collimateur de l'association de défense des consommateurs, les longues attentes pour joindre le service client en sont la cause. Pour, préserver les opérateurs opérateur a changé de système. Les défenseurs des intérêts des consommateurs alertent l'autorité, l'agence de régulation de télécommunications et des postes. Conditions qui régissent le contrat de mariage, des conditions qu'il faut maîtriser pour éviter aux futurs époux de mauvaises surprises. Dans ce journal, tout ce qu'il faut savoir avant de vous rendre devant Monsieur le maire. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Voilà, dans 10 minutes, c'est ça. Voilà. 7h20. <laughs> On te retrouve donc à 7h30 pour le premier journal de ce vendredi. Euh, voilà, de ce vendredi 9 mai 2014. Celle euh, qui s'occupe de vous, les internautes, ki nga xamante di mooy wër euh, euh, réseaux sociaux yi, Twitter, Boubouk, Instagram ak yeneen yu baax yi seen ay connexion. Elle s'appelle Miss Grain de Sel. Zézé, Bonjour Zézé. Bonjour Pape Bonjour Zézé. Pape Cheikh tey def tagala yow tamit. waaw gis nga waaw def nga doom def fa nga ne. waaw xaw a niroo sénégalaise ci vendredi bi. waaw waay faut ah. xam nga vendredi bi d'habitude je dis souvent comme défilé de mode mooy am Dakar. Uh-huh. gars dañuy génne yu bees ñoom xar feppi taille basse grand boubou marinière sabador. <laughs> xar feppi mooy yooyu rek ñuy bàyyi noonu muy dem. ànd ak walang. moo tax ñu ñuy vendredi wu. a ah oui ah et am na ci ñoo xam ne ah euh, dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jël ay yére yu nekk ci taat. taatu waxande. Ah. waaw waaw am na ci euh, sama gaa yoo xamante ni. seeni yére dina saf ndox saf saabu. ku def loolu mokkuru mbax. ah <laughs> seetal rek. Ah. seetal ci sama pegg bi rek. wala rek koy jiiñante. en attendant koy jiiñante qu'est-ce qu'on propose matin aux euh, internautes. alors tey li ñuy proposé internautes yi ni ko Mado defee rek strass paillettes fun and fashion. loolu la ñuy proposé euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy téléspectateurs yi internautes yi ñu wax ñu euh, seen avis si si rubrique Mado tey ak ñu wax ñu ñoom tamit rek yan strass yan xeetu strass ñoom ñoo tendance lépp lu ñu xalaat rek jëm ci fashion mode paillettes strass mun ñu ko wax sur la page Facebook de Yeewu Leen. super donc à tout à l'heure ok à plus. et puis euh, ak anniversaire yi ah. qu'ils surtout pas euh, d'envoyer ça et puis seen ay message surtout ñu nekk bitim réew ah pour seen mbokk yi nekk fii Sénégal ah. on attend on attend tout ça et puis de temps en temps ñu lamb la fa nga ne rek. d'accord amul problème. Euh, defe naa tey moom dendoog ay dof sax koo dendal kon bi. nit maa ko wax maa ko wax. ne dañ maa menacé. la wax. nee nañ ma duñu ñu jaarale sama jaal sama écrital su ma leen ndajee. kon wax ko eh, bàyyi fi ngay wax ko ma may la cent francs. fan laa wokk wokk ma de damaa teg sama loxo rek. ma xool <laughs> ma xool. ok am nga chance waaw eh. toj nga fi de à tout à l'heure Zeyna voilà c'est ça alors yéen tamit euh, mën ngeen a bokk ah, ci téléphone bi 88 628 65 65 88 628 22 22 7h22 88 628. 04 05 mbaa jox joxe naa boobu 04 05 bi. wax naa ba ok 65 non c'est parce qu'il est 7h22 au moment où je donne le eh, le 22 22 je vois 7h22 ah, devant moi voilà ma feeling ko 22 ah, euh, la rek feeling la rek. très bien feeling patch. <laughs> Kudugu euh, dinañu la teral li ñu leen di may nag euh, c'est juste pour neexal seen seen week-end ah. 25000 tey mën nañu yegg sax ba mille waaw sama yaram dafa tàng. Eh, yàq rek ma indi ah enveloppe yaa ngi tege Kudugu ñu jox la lu lay bégal bu ko defee sa samedi ak sa dimanche mën a neex en attendant voici la une bu l'observateur bu tey bi. vendredi 9 mai 2014 et on reparle encore de politique ak élection locale yi locale 2014 hypothèque hypo hypothèque ah c'est ça ah euh, hypothèque sur la liste de xalif c'est à Touba ak euh, photo wu xalifa euh, général euh, bu Mouride Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg te wér voici la une hein, point de titre la Sénat décidé à respecter la parité sur la liste de Touba pour Abdoulaye Dieye Abdoulaye Dieye il dit la Sénat aurait pu saisir la cour d'appel ou de saisir le sous-préfet à Ogo ba tey la liste de Benno Bokk Yakaar repêchée hier attaquée euh, devant la Cour euh, suprême et puis affaire de drogue euh, paraît-il que la padiagne dañu ko jàpp ci affaire drogue après l'observateur ñëwaat ci loolu def ci une bi ne usage de stupéfiants dans le milieu de la musique artiste et drogue un duo bien sénégalais ak photo wu ñaari artistes yoo xamante ni souvent on parle de ci yëf yooyu ah euh, euh, donc euh, mën ngeen ko gisal seen bopp ah du ma leen ko wax a ah, à vous de lire voilà <laughs> waaw yow pas de bul xool ah du ma leen bu leen xool ah bul xool y a bul xool ah xool leen l'observateur bu tey bi pourquoi vous rigolez rien <laughs> dara bu ma kenn xool bul xool yow bët amul rido bul xool laa wax bët amul rido <laughs> et puis euh, euh, ñëw na ci faits divers moi j'aime pas trop les mauvaises nouvelles euh, wax ci proxénétisme détournement de mineurs la prostituée offrait une gamme de une une mm. de 14 ans à des hommes contre de l'argent ça ça lii moom c'est une très très très très très mauvaise nouvelle man ngeen ko liiral seen bopp mm-hmm. voilà sama yoon nekku ci <laughs> bul mer waay ak mu ne la prostituée bi da doon. offrir xale bu am fukki at ak di ko jox ay góor. xalaat xalaat kay aywa nit la. bon kay du nit ku

télé euh, dëgg-dëgg taamu naa ci kuddu yu njëkk yi kon bu ñu leen njëkkee sedd day baax ci yéen comme ça ngeen mën a euh, feggas ndiku rek euh, lijjanti soxla yi ci juróomi junni yeeg fukk yi ñuy séddale tey fii ba 11h kon ñu jàll ci jóg job